li ñu fi dajale tey mooy li nga xam ne mooy article 196 di article boo xam ne ñun jigéen ñi dañ ko tuddee day def promotion du refus de paternité maanaam ku jur doom bu la neexee nga ne maa ko jur bu la neexee nga ne juruma ko te ñun yaay lañu yaay day mënul seetaan lu bon ci njabootam yaay mënul seetaan ñuy métital doomam bu jigéen ndax moo jur ku jigéen ki jur ku góor ki ak kuy métital ku jigéen ki kan la ku góor ki donc ñun ndey ju seex lañu moo tax tey ñu ne il faut que ça s'arrête ñu ne stop donc à la promotion du refus de paternité doom bu juddoo ni muy amee ndey noonu la waree am baay doom yépp tey jii bu ñu amee ndey am baay dañuy épanouir comme il faut donc gis ngeen ko ci suñu slogan yi ñu yi nga xam ne moom la ñu joxe chaque enfant doit connaître son père ñun tey loolu ñu tax a jóg te góor ñi dañoo bëgg ngeen bàyyi li nga xam ne mooy promotion lu yomb li nga xam ne moom ngeen di def ndax gis nañ ne yàq na lu bëri ci njàngum xale yi yàq na lu bëri ci éducation xale day jàng jël santu yaayam ba muy juddu ndax papa ji reconnaître ko mu dem ba màgg ba muy wàjji tekki soit parent yi ne ko gis nga sa doom ji nu mu la niroo yaa ko jur soit moom mu xam ne njëriñ ma nga ca wala moom mu dem sax ba ci biir xam ne mënul am doom mu dellu si di reconnaître xale boobu di génnee extrait de naissance bi xale bi santoon santu yaayam mu génnee ko indi sant boo xam ne santam la moom xam ngeen ne loolu ñaaw na loolu day rusloo yaay ji rusloo famille bi loolu day rusloo xale bi ndax ay moromam dañ koy kokkali ne ko yow de da nga santoon nii nga xëy suba sant jóob xëy suba euh, sant Fall te tax na xale yu bëri seen jàng yàqu tax na xale yu bëri dem ba ne dañuy xaru tax na xale yu bëri xeeb seen yaay xam nga ne loolu ñaaw na te yaay jooju moo jur ko góor ki ko jigéen ñu bëgg nag ngeen mu am benn sursaut des hommes ñu xam ne société bu ñu nekk société sénégalaise c'est une société de valeur qui incarne des valeurs et qui inculque des valeurs kon nañu dellu ci valeur yooyu ku jurati doom na nga xam ne yaa ko jur et di leen di wax ne ci xeex bi ngeen di xeex refus de paternité euh, da ngeen ñu ci fekk parce que daf ñu amal solo ci éducation bi daf ñu amal solo Euh, ay la yoon am na ay tout tànk yoo xamante ne seen njàng yàqu na parce que tout simplement xamuñu seen way bu bu góor wala dañ dem ba toll foo xamante ne euh, dañ leen stigmatiser tout simplement parce que xamuñu seen seen euh, wayjur bu góor ba tax na dañu ne refus de paternité day salfaañee ak ak yëleefi tout tànk yi surtout ci wàllu éducation parce que état civil wala yu ñu demee mais itam. day euh, salfaañee le droit à l'identité maanaam xale bu nekk war na xam fi mu sosoo war na xam moom mooy kan am identité loolu droit am la ak xam la ak yelleefam mais itam day salfaañee tout simplement li ñuy wax le droit au bien-être psychosocial parce que xel nag dafa war a am dal ci xel itam pour mun a jàng bu baax.